mu nekk seen mbokk Seydi Hamza Kounta di coordonnateur cellule culture et communication bu Ndiassane. waaw alhamdulilah dañuy euh, sant yàlla subhaanahu wa moom mi ñu may tawféexu fekkee euh, ren muy cent quarantième édition bu gàmmu Ndiassane li nga xam ni nag moom mooy li nga laaj ci wàllu organisation bi euh, li tax mu yombu mooy ki nga xam ni mooy xalifatul am di tarixatil xadriya muy le xalif général des xadr ak ñi koy jàppalee dalee ko ci porte parole am ba ci suuf dañoo wéyale rek li nga xam ni moom la kër gi baaxoo mooy lépp lu xam ni fekk nañ ko fi mu baax ñu jéem koo dooleel bàyyi ko mu dem loolu moom moo tax commission yi nga xam ne ñoom ñoo fi nekkoon comité yi benn bu ci nekk bi sëriñ bi ñëwee daf la renforcer waaye daf ko reconduiraat loolu noonu nag moom moo tax ñu am résultat yi nga xam ne tey am nanu ko ndax mën nañoo ne gàmmu gi li ñu bëggoon am nañ ko à quatre-vingt-dix pour cent ci côté yëpp nag loolu nag ay ay ay jéego la euh, ay ay ay pas de plus la ñuy ñaan yàlla gën ñu cee defal mm, tawféex ndax gàmmu la goo xam ni euh, fu ne waaye bàyyikoo na fi ñëw mais ci côté presse rek li ñu enregistré gum nii euh, bari na lool ba sax ñu kawe na sunu njort ndaxte daaw ci bii heure. li ñu am ci presse euh, daanaka euh, doublam mën nañoo ni xaw nañ koo am bi mu ji jamono nii kon loolu nag sant yàlla la ci côté yëpp nag euh, ci côté organisation moom itam moo tax ñun ci wàllu bi ñu féetee muy wàllu communication ñu fexe média boobu di ñëw ñu mett leen ci ay conditions yu optimal bu ko defee bu ñu ñëwee ci gàmm gi xam ni daal kër Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam lanu ñëw waaye kër Cheikh bu Mouhamed Kunta lanu ñëw te loolu ku ko wax wax teral gan ni ñu ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax jàngale dalal gan teral leen yaatal leen ci gan yi nga xam ne nag ñoo jóge ci réew mi ak bitim réew ndax euh, gàmmu gi gàmmu sous régional la alhamdulilahi rabbil alamin kon ñi ngi sant yàlla bu baax a baax waaye daal ak yomb buñ ko amee dañu ci njëkk ci gërëm googu mooy alxalifatul am di tarixati alxadriya ak ñi koy jàppale waaye itam ñi nga xam ni tam ñoom ñooy les autorités étatiques jàppale nañu ci gàmm gi fa tabarakallah ba mën nañoo wax ni à quatre-vingt-quinze ou quatre-vingt